Heavy Mess.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 law ma ne xale bu jigéen bi mu ngi wuyoo ci turu MB di receveuse si ab bis tata at yi toll ci ñaar fukk moom dal nee nañu chauffeur bi mu doon liggéeyal la amaloon coow naka noonu ci coow loolu ñu amee ñoom ñaar chauffeur bi dal di koy dàq si noonu MB dal di contacter patron chauffeur bi di borom oto bi bi mu ko contacter dal di koy solliciter ngir mu rendre ko service ndax ni ko chauffeur boobu daqee du yoon patron bi ngir bëgg a régler bi dal di koy fixeel rendez-vous xale bu jigéen bi dem fekk patron ci béréb bi mu ko jox rendez-vous li ci doy waar nag mooy patron bi fi mu jox xale bu jigéen bi rendez-vous ndekete woo ab la <laughs> waaye lu nar a xew ndaw si ne bu mu yëgsee patron bi dalal ko waaye ci biir waxtaan patron bi commencé xiini xaana tàmbali ko aborder ñu naan deetawaay mu song ko forcé ko ba dal di yegg ci kawam waaye ma ne ñi dañoo feebar de yuuxu yi ndaw si jigéen si doon yuuxu nag moo woo nit ñi ndax ndaw si jigéen ci bi la fi amee ba pare dafa toog doon jooy jooy yu metti bi nit ñi yegg see fekk leen fa patron bi moom lay wu ne dugg na ci ne ndaw si coroom la ñoom ñaar dañuy génn waay waay waay lu xew naka noonu ci la témoin yi conseillé ndaw si ne ko na porter plainte ci la ndaw si demee porter plainte ca police bu waqinaan nimzat patron bi ci procès verbal bi nag da doon jéem a weddi waaye am yooyu ak layam yi convaincrul benn yoon enquêteur yi ndax certificat médical bi li mu wane mooy ndaw si ci boppam subir na agression sexuelle <laughs> ma ne ko dugg nga ni ruba fi mu toll nii nag patron bi defeere nañ ko pour viol <laughs> man dama xamul régler problème lu ci yoonu auberge moo tax ma ne ji dal réew moo gën a graw waaw korona laa wax la xew ca mbuur séeréer romb na doy waar ñaari xale yi jigéen ñoo fa partagé seen vidéo xarit boo xam ni ma ne la ca nekk ëpp naa tudd ci rajo wax bi loolu amee na SR di seen xarit bi ñu partagé ay vidéo mi ñu jàpp ne moom la ci la demee saisir commissariat central bu mbuur ndaw si teg si table bi ne FD LD ak CF ñoom ñëpp di ay xaritam ñoo partagé ay vidéo yoo xam ne ki ci nekk dafa nduroog moom waaye du moom ba noppi wër ci quartier Mbuur yëpp di yàq deram waay waay waay bàyyi leen partagé lu bon bi loolu amee na xarit yëpp dem nañu wuyu ji yoon bi ñu leen lankete MLD di benn xarit bi moom nee na copain bi nekk Europe moo ko envoyé vidéo yi par WhatsApp bi loolu amee na MLD nee na ci la partagé vidéo yi dal di koy envoyé seefal di beneen xarit bi naka noonu ci la vidéo yi dal di wëree moo taxit ñoom ñaar ñi def loolu yëpp teg nañ leen loxo ba présenté leen procureur <laughs> ma ne ku ci bàyyiwul partagé moom nii moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Jurbel romb na doy waar ab dawal ko tu moto Jakarta la fa ay samba booy dal di bi mu egsee ba ci béréb biñ ko piégé ki la ko samba booy yi dal di songu jamante ko ay paaka ñu naan déeta waay ñu foqati moto bi dal di yóbbu sawaay bi ko sapeur yi jël see ko ci oto bi ba koy yóbbu ci biir oto sapeur përi la ñàkkee ba kanam ay way way way way mim réw réew moo xam ne léegi sécurité zéro zéro euh, mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz